Happy birthday se taasumkat yi woykat yi ñëpp woy lañ te xam nga woykat bu dàqale ko woykat bu woyee pour de chien day pour de chien yaa ngi ne léegi de buli c'est de buli ni yëngu léegi nag ñun ñun comédien yi ñu man man man dama lay woyal joyeux anniversaire boo xamante ni exclusif la te fii lañ ko fentee xam nga joyeux anniversaire nit koo xamante ni vraiment dañ koy woy ah xam nga soo leen fekk bu ne da koy woy léegi da ngeen xool ban xeet moo leen boo gën a të mosoo leen ko dégg ma woy ko. woy ko chinois. chinois chinois chinois. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi fi teew tey mhm. rawatina Djibi Dramé Kéba fii la bokk Seka mii fii la bokk suñu euh, tante Adja fii la bokk ñuy kontaan ci ñëpp ñëpp ñëpp ñi fi ñëw tey Papa Thione nag moom dañ koy ñaanal gudd fan parce que nag ñun demuñu fenn njelwaan yi ku ñëw suñu biir kër gi xam ni douze kër xaj na ci waaw ah, keroog dama taxaw ci studio bi génn sëpp ma ne mais kii ki tabaxu dof deug la tabax non billahi da ngay xamni ni 12 keur xajna fi xajoon na ci mom xajna ci poosam bu ko nekkoon tabax ben 150 mètres carrés la ci def mu def ko ci kontam di lek nam ko nexé ak fam ko nexé mais defu ko daf ñu xalal ñu njabotam kon li nga wut sa njabot yalla nako yalla yàlla mottali li nga def ci Sénégal bu ko sénégalais yi gisé alhamdullilah buñ ko gisul yalla nako yalla fay lolu mo ëpp solo. donc ñun xam nañ ki nga doon xam nañ li nga doon xam nañ fa nga tax taxawee yàlla na sa taxawaay yàgg seen TV jërë ngeen jëf Cheikh Sarr kontaan nañ wasalaam. bu ñu waxee rek sax dañ doon xaw a ja ndax fii man sama mat gën nekk xale te yow li may xam nga ko boobu waa li muy xale la donc mais suñ ko ñaanee tam ñu ñaan ñëpp ñaan ñëpp ñu fu teew mais leneen laa ngi dimb yàlla ku jóge fii boo fu jógee bala ngaa tëdd noo sarax ma rek nga ñaanal ma ko gudd fan ak wér. ci am nga loolu rek man man loolu moo ma gën a intéressé ma ñaanal ko <laughs> mais ñu ñaanal ko ki nga xam ne tamit yàlla moo ñu ko jox parce que nag su nekkee waykat ak koo fi mën a doon fii yàlla dafa dogal ne kii yàlla may na fi loo xam ne ci assonage son dama demagul fenn bàyyam bi amu ko woon donc bu ñu fàttee ñoom du ko ñaanal parce que cat dafa gaaw te xale la te macha allah mi ngi fi def loo xam ne wax dëgg yàlla man tey defaguma ko te est-ce que dina ko def yalla na ko yàlla dogal mais tant que ming ko def man mang ci fier waxuma ko beug lu ko neex parce que gisuma ko mingi ni wax deug yalla mais li am solo ba am solo moy gannaaw yalla gannaaw euh, yàlla loolu lépp grâce c'est grâce à ce grand monsieur là moom la mom la yat bi dal comme ni ngi koy waxe yat mom moom la yat dal mm. donc mu uuf ñu te ñim ñu bi ñu oufé ñu ñëpp ku sopp ci moom xanaa kay nga jékki-jékki def la neex mais ku topp ci moom bu la ñaanalee billaay li nga xam ne lépp dëgg la. ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi fi teew tey rawatina Djiby Dramé Kéba fii la bokk Seka mii fii la bokk suñu euh, tante Adja fii la bokk ñuy kontaan ci ñëpp ñëpp ñëpp ñi fi ñëw tey Papa Thione nag moom dañ koy ñaanal gudd fan parce que nag ñun demuñu fenn yelwaan yi ku ñëw suñu biir kër gi xam ni douze kër xaj na ci waaw ah, keroog dama taxaw ci studio bi génn sëpp ma ne mais kii kii tabaxu dof dëgg la tabaxa no billaay da ngay xam ni fii douze kër xaj na fi xajoon na ci moom xaj na ci poosam boo ko nekkoon tabax benn cent cinquante mètres carrés la ci def mu def ko ci kontam di ko lekk nam ko neexee ak fam ko neexee mais defu ko daf ñu xalal ñu njabootam kon li nga wut sa njaboot yàlla na ko yàlla mottali li nga def ci Sénégal bu ko sénégalais yi gisee. Alhamdulillah, buñ ko gisul yalla ko yalla fay lolu mo ëpp solo donc ñun xam nañ ki nga doon xam nañ li nga doon xam nañ fa nga taxawé yalla na sa taxaway yag sen TV ngeen jëf Cheikh sar contane nañ salam xana di sant yalla rek soorum won nak wax dëgg yalla heure bi ni di ngeen def bi fonkolum surprise mais euh, ma ma maa di sant bu baax. wax gi nag du gudd parce que bu ñu gërëmee yàlla mi nga xam ne mooy borom dogal yi damay concentré lépp delloo ko parce que Wally Ballago la ñu wax parce que deretu Ballago mooy daw ci Wali. chaque jour damay gën di am fierté ci moom parce que waxoon naa ko ca benn anniversaire wali ci katun yalla ba dina ma tontul demb tontul ma tay ak ëlëk ci tam ñaan musique position ak ay ouverture yalla nangul na mais ci mom la ko def euh, ne ne donc borom euh, ndax bu ko yemale woon ci man xëy na bu âge bi duggee dootoo mën a seqi wala dootoo mën a dem waaye fi mu nekk nii leer na ma nekk moom dina assurer relève bi alhamdulilah xam naa ne yaayam ku baax la yaayam muñal na ma lool ndax su muñul woon duñu agsi fii am na yu bari yoo xam ne dafa gëmm tànqamlu moo tax ñu mën a yegg si ba fii mu uuf njaboot gi te moom njaboot euh, moo ko gën a lépp jàng naa loolu ci moom xam naa ne daal incha allah rabbi bu ànd ak dogalu suñu borom comme ni mu ko nammee waali laay wax su kartul xaalis naanul sàngara duggul ci sobe kenn du ko yërëm loolu moom leer na ma te euh, gis naa ci moom euh, xol bu rëy ba nga xam ne des fois sax man je me dis est-ce que réellement il est obligé de faire tout ça là loolu mom waaye waaye nag ba ba la ko yalla bindé mm-hmm. Alioune tam limu wax dëgg la parce que euh, cohésion njaboot mo am solo pour une bonne finalité